thank you jànk bi waaw bi waaw mindaan bi ah ça va yow yaay jànk bi waaw ah. waa verre nag ana jànk ak takk verre damaa am yàpp ah moom mu yàpp ay verre ma yi day noir fi ma ngay takk léegi nag liggéey nga liggéey kër gi ba pare ah. dangaa dem marché ba ñëw waaw yooyu di kan la jox dépense waa jàmbat bàjjen Mati. waaw ah sama mag borom kër moo la jox dépense. ok man maa jéeg bi sees si kër gi bis ki tey man maa joxe dépense. nga demee mas loo ndugg. loolu lépp nga ndugg. yi ci weeru koor gii. danga ko jël teg ko nii. ndax du woor ba weeru koor ñuy ndogu di ndogoo salaat ak diwlin nag li nga expliqué nii ah dugg naa ba pare. nii loolu lijjantiwuma ko man maay jeeg bi dogal ci kër gi comprendre nga demal marché nga jëndal ma nga toggal ma ceeb bu weex tàll na am bëgg ci am suul am bisaab ak daqaar lépp léegi à part kii kan nekk ci kër gi. daala loolu nit la. ak wax ma la ronos de laaj ma la ronos dama ne nit ñi kan la kan ak kan ñoo fi nekk. wol ma leen ay ronos ay daal kii la. daal yaay kan. daal velu. yow yaay daal velu. yaa nelaw ba 2 heures yaa nelaw ba 11 heures war a jug naan man may daal veli xanaa yow amoo liggéey. non. man maay seen tante bi fii sëy si démb ci guddi ñëw fii gérer kër gi. arrivance bu bees ci kër gi. la. fii mère Fane Ndiaye nekk ko fii man mii maa fi nekk man maay siit bi fi sëy si beeg ci guddi dégg nga li ma la wax te bu fa tuutati mère Fane nag. ok yow nga yow yaay kan. ah yaay Dalla Veille Dalla Veille daal tur la. yow an saw beneen mag bi keneen ki. Killa bougé na matinal. moom lu mu tudd nga kill Killa ah Killa. moom tamit bougé na. ah ok sa papa na wax na ma lépp lu Killa xew ci kër gi. ngay nekk ci kër gi def lu leen saf. lépp dafay jeex te nga puus ma nii lépp jeex na fii. maa ngi jënd kër gi ba mu réglé na kocc na korocc yéen ku leen bàyyi ngeen firim réer xoolal ci tàkk jaawloo yi. mais Fane Ndiaye dem na picc bu ñëw ci kër gi. ñun fan lañ koy waxee métti na. kër gi daal li ma ci métti neexu ma waaye nag naa gérer lépp. ngi ci kaw. njéeme. waaw. jeeg boo xam ne yëg seegoo di wàññi dépense di régler kër gi. billaay Mor xamoon na ne day yor waaye yat na client bu mu jël wekkale du ko delloo weccit. waaye dem marché. kan yow nga dem démb marché dikk bërki démb naan ma ma dem marché <laughs> dama yëggali sa liggéey boobu moo gën. jeeg boo xam ne yëg seegoo di indi ay problème Mor xamoon naa ne dina dina consulter le verbe résoudre il va résoudre ses problèmes. su daal noonu. man nee naa la dama laa bëgg yaay sama seytaane. isaan dama xaw a stressé quoi parce sama contrat maag bari bi foo annulé Fallou Diagne ak Sadio Mané moo tax mu annulé. ma yaakaar ne maa bu ñu toogee da fàtte lépp. non ba man bal bi laa bëgg quoi bal bi laa bëgg. mooy loolu isaan dama ne si yoon mooy loolu bientôt dama war a fekk ñoom kii Sadio Mané bàyyi. waaw doo ma ci boole ñu àndandoo génn. déglu ma la man damaa jugement seize ans la am instant yow mag. waaw gërëm man su ko laajee naa ko def. doo ma wuyu ci li ma lay wax. allo waaw. Euh, Messi ko pay pay pay kayo ko ekip ko a ti may kopino ok ah wa nga topp pour lan ndeelew kenn waxu la dëgg de dëgg est-ce que xam nga ne gaan bii c'est un psychopathe kii wérul nga topp kii nga xam te ne saa ma fi jaaree romb mu lay toroxal pour la wax nag maa toroxal. waxul dëgg kii li muy wax dafay reeve. eh yow yaay dem nga toog kii li muy wax yëpp dëgg la démb rek dama paas téléphone yow noo yaa ngi daj sa bopp te yëgoo nii lay def dafay waaj a dof. eh man moom laa bëgg la mooy sa moom nga bëgg. waaw te jantal meen yi nekk ci bi baa du ko yëngal. est-ce que xool naa leen. kee laay xool te bu ma wooti. Ndéla. man dama bëgg nga baax te yow doomu jullit nga bul fàttali ni jullit nga te ba nga doonee tout tànk ba suñ jon yàlla tey dangaa jàng alquran xam li yàlla wax xam nga ko bu baax a baax te it sa yaay dafa teel a génn àdduna bàyyi la ak man yow yameluma la ak dara xam nga ni dama laa bëgg lool leen rek laay bañ mooy fréquentation yi ngay fréquenté ñooñ duñu say nawle yow jàmm yàlla nga mus a def ba nga juddoo ba léegi ci diine laa la yar ak ci lislaam góorgóorlu da danga xool Abdou sa mag moom macha allah macha allah jaamu yàlla rek foo ko fekk mu ngi jàng alquran mi ngi julli xoolal keroog ni ma la fekkee lu doy ni weeru koor bëccëgu weeru koor nga toog foofu di lekk loolu rafetul te man bëgguma lu la metti yow xam nga loolu sama yaay laa la tuddee. papa li nga wax dégg naa ko man boobu ba léegi dama am sax ndax li ma fekk ma doon def lu sama wareef te waruma koo def sax nag ndax doomu jullit laa doomu jullit yu bari daf ko war a joom ba tax na maa ngi lay jégalu bu baax a baax di la wax ne dootul amati. kon góorgóorlu man moom duma la def dara ndax sama doom nga sama xarit nga dama bëgg rek nga baax. kullukum raa'in wa kullukum mas'uula an ati woy jur bu ne bu ëllëgee dama lay laaj ana naka nga sàmmee sa njaboot góorgóorlu. incha allah jërëjëf mën nga àgg ci biir. jërëjëf na nga gën a góorgóorlu. waaw am problème.